sant sama jëkkër macha allah. ñu ñëw fii gis sa mbokk yi teeru la fii tey kenn amul foo jaar. dëgg la loolu lan nga leen dig lan nga leen dig. ah damay wax ne rek baax rek am solo baax rek am solo donc nit ñi kenn mënu leen loué bu fekkee ne nga dëkk si gox franchement yëg leen bëgg leen di leen tiitaroo à chaque fois nii rek la mën a demee donc dama naan rek jërëjëf waa ñaari tali samay xarit samay mbokk. tey nit jóge na fu nekk pour man te du loo xam ne dama leen ko defal donc defaluma la yàlla lu tax ma mérito lii damay sant yàlla rek macha allah voilà. année année Moussa Seck Moussa Seck lu ñu xaar pour ñëw. <laughs> dina ñëw bientôt incha allah yàlla baax na ñaanal leen ko rek voilà. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup c'est gentil de waaw borom téléphone dañuy direct loolu. foofu la foofu la foofu la léegi mun ngeen jënd ah, ah, production bi ñoo ko gañe waaw baax na baax na si ñëpp. baax na si ñëpp. waaw tey sa bés bi lan nga ciy yëg tey. waaw ñu gis ni da nga da nga battre record dot gaa ñi ngi doon dégg ay 5 millions wax 4 millions ñu dégg bi plus de 30 millions madame Seck. sa mbokk yi teeru la fii tey kenn amul foo jaar nit ñi loolu lan nga leen di lan nga leen di. à chaque fois la la waxal. yaa léegi du waay nga ah. borom téléphone dañuy direct rek loolu. merci grand jaajëf. oui ma. alam xoolal fii fii. alam. soxna si jël ñu nii

شريفنا بإمام كن جارام سيد الحاج مالك زفي جدواه أكبر سن شيخ الخليفة بابكر سجلنا نغلى في جدوى الحاج منصور برب القوم في جدوى محمد منصور الحاج منصور ما يسلي منصور عرفت الولا شرطا دربا وغربا وعرضا ولا أراك بالمنصور وفي سائر الولا لبقت تسابق الأقوام يوما يوما إلى العلا la wax ni moom lay def ñaati mi boo ko joxoon arab mi du yenn ci moom nee na ci way juróom la ko jëme pâte dentifrice Jamila bi pâte dentifrice Jamila bi ku ko xam arab moo tax bañ nañ ko bañ ci bëri sax bañ na ko ba ñu ci bëri sax ñëpp jamila lañ leen di woowe ñëpp jamila lañ leen di woowe moom lañ koy woowe moom mii lañ koy woowe kon fu pat bi dem dem na fa dem na fa ànd koog moom tey nag mu doon koo xam ne tey nag mu doon koo xam ne kii toujours danaan nañ teg suñu tànk mu avancé rek nañ teg suñu rek mu avancé ci jëm kanam mu jëm kanam rek bu leen ma jox dara soxlawu ma leen na ama avancé rek loolu it ñu ànd koog moom it kon nag euh, soxna si. sëriñ bi nee na kon soxna si boppam ñu ñëw. ñëwul waaye nag yónnee na. waaye nag yónnee na ab délégation. jox leen ay teraanga. jox leen ay teraanga. ñu ngi ko indil. loola na xeeb nañ ko. loola nag xeeb nañ ko. waaye moom lu ne yéene nañ ko. waaye lu ne yéene nañ arab mii. Touba googee ñu dëkk. Touba googee ñu dëkk. waxtu wu nekk. waxtu wu nekk. dina fa fekk suñu fa. sëriñ bi nee na dina fa ñëw fekk suñu. ba day mel bi la ba day mel ni ci famille bi la bokk. ba tax na li wax naa wax naan xarit amul. nee na xarit amul. ki nga xamante ni mooy sa xarit. ki nga xam ne mooy sa xarit. mooy ki nga xam ne baatu laa ilaaha illa mooy ki nga xam ne yéen a bokk baatu laa ilaaha illa laa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su ñëwee ci ñun. nee na bu ñëwee ci ñun. xamee wuñ ne murit la. xamee wuñ ne murit la. xamee wuñ ne tijaan la. xamee wuñ ne tijaan la. liggéey boobu bi nga xam ne moom lañ seq. liggéey bi ñu seq rek. da koy weesu. ba mel ni taalibe ci kër gi. musuñoo toog. musuñoo toog. bañ ràññee koog ni kii. ban ràññee koog ni kii. ab taalibe la. ab taalibe la. waaye du taalibe liggéey boobu moo ñu boole liggéey boobu moo ñu boole. dem nañ ba doon ay famille. ba doon ay famille nag. kon loolu sant nañ ko ci baax gërëm nañ ko ci. te di ko ñaanal ci barke Serigne Touba. sëy bi yàlla barkeel. yàlla na egg fa ku gënal. njaboot kan see amit. yàlla na ko yàlla barkeel mu baax a baax. nee wax jooju it. nee na yéene waale nit Serigne Fallou Kol. ndax moo nu boole woon moom. bam nu boole moom it nu moom mii rëcc wu ñu naan ànd ak kon nag aram jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ndokkeel jërëjëf Faye Ndiémi jërëjëf. waaw léegi may na may na may na. waaw waaw waaw mu delloo day delloo kàddu waaw waaw delloo. dafa dafa am teraanga ju mu indi. waaw dafa am teraanga ju mu indi nga war koo joxe da koo fàtte soxna si soxnaam. moo la indi teraanga yi arab kon bu ñëwee ba wax ba dem te tudd teraanga yi. waaw am na lu muy niróo. pañe la ak borodé.